Je euh, tous les militants sympathisants de PASTEF de la diaspora du Sénégal ak de fu ñu mën euh, de di retrouver Wadjotna. Jotna euh, doon bëgg live bu par rapport à ce qui s'est passé ci parrainage jour Ousmane Sonko il y a un tey mandataire di sur les 126 candidats ou 130 candidats peut-être déclarés donc ce qui s'est passé pour faire simple moi, euh, direction générale des élections mandataire Ousmane Sonko parrainage ni parce que Ousmane Sonko dañ mais pour vous dire que ni c'est pas une surprise euh, et que depuis c'était une hypothèse bon les ni envisagé ni gàllankoor Ousmane Sonko séquestration tëj ko toj ay otoom dina ko def donc bettuñu ñu ñëw di jël si parrainage mu bañ mais li nga xam ni moo ci xaw a doy waar tuuti euh, mooy direction générale des élections moom dafa amul pour di wax nit ki bokkul ci compétence am mu naan diw ak diw ndax da ngaa war a am parrainage moom ku war a am parrainage ak ku ko war a jël yoonam nekk ci moom liñ ko sant daal mooy candidat bu ñëw indaale mandateram ñu gis ni carte d'identité indi baax na wala moom ki mu yabal kii nañ ko jox nañ ko euh, euh, signeel nañ ko kayit dañ ko jox ay parrainage parce que processus bi nii lay demee képp ku ñëw foofu amul amul ordinateur amul ordinateur amul fichier amul dara donc ku ñëw kenn dugal sa tur ci ay ordinateur ba ordinateur bi naan ko diw mii kat dañ koo raje wala rajew ñu ko ku ñëw ñaari nit ngay njëkk a gis kenn ki moom mooy enregistré sa mandataire këyit carte d'identité nga koy jox photocopie carte d'identité ak lettre mandataire bi mu contrôler carte bi ndax baax na mu ne la demal keneen ki nga jox ko coordonnateur parrainage mu contrôler carte bi ne la demal photocopier ko bàyyi fa ne la demal ñu jox la say fiisu parrainage nga dem donc ordinateur bu ñuy xoolee ndax yaa ngi ci liste wala nekkoo ci liste amu fa et sur les 126 vingt six candidats yi fa nekk amu ci kenn koo xamante ni euh, contrôler nañ ndax yaa ci liste yi wala nekkoo ci liste donc ñoom dañoo defar lépp rek pour Ousmane Sonko bañ a bokk léegi Ousmane Sonko am na fukki fan incha allah fii ak fukki fan dina saisir tribunal tribunal am na fukki fan pour tontu ko donc ci diir bu gàtt la. te incha allah avocat yi ñu ngi dajale di liggéey liggéey bu mucc ay avocat yi dinañ ko yóbbu tribunal jarul yàkkamti dañoo bañ nit ñi tiit wala paniqué pour ñu xam ni Ousmane Sonko dafa teeloon a anticiper anticiper moo tax bi ñuy dem mu yabal juróom ñu bokk Pastef ñoo xam ne yéen ñëpp xam ngeen leen muy Guy Marius muy Bassirou Diomaye Faye muy euh, euh, El Malick Ndiaye muy euh, Birame Souleye Diop muy Abbas xëy na sax ak ñeneen ñu ñu ñuy ñuy ñëw ni leen yéen ñëpp dem leen ngeen déposé donc bu ngeen déggee Pastef am na candidature yu bëri mooy projet bi benn nit liñ bëgg a wax Macky Sall mooy Ousmane Sonko boo ko xañee parrainage la li mu jàppoon moom mooy bu nekk Ousmane Sonko du nekk du def parrainage ñun dissoudre na Pastef maanaam terrain bi ñun dañu ci éliminer ñi si des ñëpp uti ñu nekk di dóor dàqay moom ak Ousmane Sonko da ngay da bokk ak doo bokk ak rajo naa la rajo ma la léegi nag Ousmane Sonko nee na ko euh, radiation bi man ak yow la dinañ ko rek régler ci tribunaux yi mais en attendant pour que man sama waa parti mën a dajaloo waat ci yeneen i mais ñoo xam ne ñëpp xam nañ ni ñii Pastef lañ bokk ñoom dinañ mën a wàcc ci terrain bi ndax ñëpp déposé nañ bu ñu wàccee wax ak militant yi bu ñu wàccee ut parrainage

donc Ousmane Sonko day toppatoog Macky Sall waxu tribunal fii ak fukki fan tribunal dina décider ndax liñ ko génne ci liste yi jaadu na wala jaaduwul donc yàggul te collecte parrainage fii ak ñetti weer la ñaari weer astafirullah fii ba décembre mën ngaa parrainer donc bu kenn yàkkamti na nit ñi xaar ba nga xamante ni parenage bi fii ak ñaari weer fii ba décembre mën nañ ko jox Pastef ak Ousmane Sonko ndax fii ak lu matul fukki fan lu matul fukki fan juge chose wala yeneen juridiction yi nga xam ne ñu ngi leen di saisir ku ne ci ñoom te fi ñu teg radiation bi amul cëslaay ndax ñoom nee nañ xamuñu fu Ousmane Sonko ne nee nañ xamuñu fan la Ousmane Sonko ne ñoom ñoo ko tëj kaso mais dañoo jël fiche radiation bi même pour mu porter boo gisee mënul woon a saisir sax tribunal avant avant avant parrainage bi mooy dañoo lank carré bañ ko ko jox dem këram waa këram ni leen xam ngeen ni soon ko nekku fi ñu fekk ko hôpital ba mu ne pénitencier bi fa nekk garde pénitencier ñu leen yéen a gën a xam ne malaat kenn du ko indil hôpital ay këyit yóbbu leen ko ca Sébi xotaat fee ngeen ko jàpp fee ñu ko jàpp boo ngeen ko joxee directeuru prison bi greffier ba nekk biir prison dina déplacé wu ñëw su ñëwee fii ci kii nuñ koy waxee su ñëwee fii ci hôpital bi Ousmane Sonko signé comme saa waxu radiation bi contumace bi jeex mais ñom ñoo lank carré ni duñ ko ko yobul ci prison ba ndax bo né nit ki da nga koo génne ci liste yi ndax dafa daw gisoko mais nga yóbbul ko notification dafa daw ci biir prison ñepp dañuy xam yow da ngay caaxaan donc bu leen ci am titre ak jaxlé ñi déposé Pastef ñepp ñepp ñepp ñi déposé Pastef ñepp ñi ngeen di dégg xam leen ni Ousmane Sonko dafa gëm ni Pastef projet la projet dafa dépassé nit li muy bañ mooy candidat yi ngeen fi daan dégg ñu naan leen dañoo ñëw déposer conseil constitutionnel dàq leen amatuñu dara seen militants yi ñu ñu mujj leen a yàqale ñeneen projet bi moo war a taxaw te Ousmane Sonko li bëgg a wax Macky Sall mooy bu lu la neex euh, coono bu nekk mën nga ma koo teg ak naqar bu ne ak métit bu ne waaye projet bi may porter du ma ko sacrifier moo tax mu yabal ñi nga xamante ni yabal na leen ay ndawam ni leen yéen tamit déposer leen comme ça drapeau bu daanu rek benen jóg léegi tay mënatul empêcher parti bi ñun ñi nga xamni ne pasteur tay ku tak bracelet mu japp la comme que parrainage commencé na El malik Ndiaye dina mëna outil uti parrainage ñëpp xam ko dinañ mëna mobiliser waat suñu militant mom mo pasteur lay bañ ñu utiliser ko rek lolu loolu moom amul problème mais yalla def na xamé nañ ñu xamé nañ militant yi tout coalition yi dinañ ko génne ba nga xamni pasteur dina dékki dekkiwaat bu doon sax

trois article trois cent onze dafa ni ko bu ñu condamné nit ki par contumace nga ni gisoo ko bi nga koy àttee ñëpp xam na ni gis nañ ko nee na ko boo ko àttee ba pare tafal décision bi ci tribunal soo paree nga publier ko ci benn journal boo ko publier ci journal nga dem af taf ko kër ki nga xam ni moom nga ni contumace la daa daw pour que mu yëg ak mbokkam yëg ni yoon mu ngi koy seet soo paree nga taf ko ci mairie bi mu dëkk pour que ku ko fa gis yëgal ko ni ko ah yow kat tribunal ak lay atte atte na la te gisuñu la boo paree nga taf ko préfecture nga taf ko domaine nee na ko soo defee loolu lépp ci ngay soog a nag ni ko bu dee da ngaa nekk ci liste électorale nangu nañ euh, génne nañ la ci kenn musul gis yi ma wax ni yëpp fuñ ko defee te yooyu tànk defoo ko munoo génne nit ki ci ay liste kooku benn la ñaar bi nga ko jàppee yoon nee na bi nga ko jàppee bis bi nga ko jàppee minute bi nga ko jàppee rek contumace amatul contumace amatul Ousmane Sonko boole ci bind ni leen man maa ngi nii ngeen jàpp ma prison bu Sébikotane bind naa ni dossier bi ngeen ma wax da ngeen ma condamné par contumace maa ngi koy contesté d'accord uma ci tey d'accord uma ci suba kon attewaat leen ma parce que yoon moo ni bu ñu ko jàppee ki nga ki ñu atte ba pare ni dafa daw bu ñu ko jàppee rek dañ koy attewaat normalement sax war ñu woon def weer te attewaatuñu ko mais procureur këyit yooyu la bañ a transféré ba paré melni Ousmane Sonko bindu ko Ousmane Sonko bind ni ko japp ngén ma xam ngén ni japp ngén ma mais mom këyit gogou la bañ transféré profitons ni mom du quoi du quoi joxe que nga xam ni prison fa mu bind jox nañ ko greffier yi moom bu ko transféré wul ni génné len Ousmane Sonko gaaw ci liste yi ici leen ko ci liste yi ñuy wër-wërloo donc baal il y avait une petite coupure parce que j'étais sur la route donc contumace bi amul radiation bi amul Euh, léegi nag tribunal fii ak diir bu ndaw dina ci wax euh, yàggatul fii euh, fukki fan wax naa leen ko l'essentiel ñu xam ni Pastef ak Ousmane Sonko stratégie bi mu jël mooy lii di parrainage suñu nee Pastef tas nañ ko képp ku sol t-shirt dugg ci kaso bi ñu bàyyi terrain parenage bi ak Macky Sall ñoñam ak yeneen ñi ñun bu yàggee militants yi dinañ ñu wër dinañ ñu seet léegi nak ginnaw lu mat juroomi wa Pastef muy di di di El ñu xam leen ñoy ay Pastef ñom ñepp mobiliser ay militants terrain bi euh, structure yi militants yi expliquer leen situation bi te bu boba amul benn policier bu lay japp amul fenn ko xamni la japp amul militant bo xamni di nga euh, marche

ndax benn candidat lañ am waaye li ñuy bañ mooy di xeex ak Macky Sall ci tribunal bi bàyyi terrain bi moo tax mu ne Macky Sall dinañ xeex ci tribunal ndax fii réew mi toll ñëpp dañoo war a comprendre ni xeex ak Macky Sall comme que juróomi weer a ko fi dese juróomi weer dootul xeexu doole parce que moom doole gi la yaakaar ni ay waxoon na ko fi nee na pour ma nekk candidat bu réew mi amul jàmm mën naa dellu si waat ci kàddu gi mu joxe woon ni day bàyyi moo tax ñun ñoo am intérêt comme que juróomi weer moo ko fi dese nit ñi mere nañ ko wan nañ ko ko bi mu demee bitim réew stade yi ñu ngi yuuxu tudd Sonko marché yi ñu ngi yuuxu tudd Sonko moom fu mu def caravane dem gëm naa ni candidat bi fu mu génn di jéemawu ci parrainage nit ñi yuuxu Sonko Sonko Sonko moo tax nag ñun war a am xel dese du ñu yàq sunu projet projet boo xam ne su ba heure bii ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan

kenn ñëpp xam nañ ne amu ci droit boobu ginnaaw def na ko ak document dossier yi ñu préparé woon recours yi ñu def CEDEAO yàlla dina def léegi ñu commencé nag gis liggéeyu avocat yi donc fii nag avocat yi di lijjanti mbirum candidature Ousmane Sonko dina fekk juróom ñi nga xam ni yabal na leen ñu déposé ñoom ñëpp déposé nañ yàlla def na ci jàmm alhamdulilah ñu mën a mobiliser waat militant yi te policier du leen jàpp. kenn mënatu leen a tere préfet du leen tere ñu dugg ci koñ yi wax ak militant yi wan len ni candidature Ousmane Sonko képp nak mo fi nek ñom ñi ci def fi ba keroog juridiction manam recours ñuy def ci tribunaux yëpp di jeex candidat Ousmane Sonko la ñëpp di liggéeyal ñëpp ñi ngay woowee plan B Ousmane Sonko yabal len ñu outil parrainage bu ñu utee parrainage ci gaf ak Pastef rek lay dugg. parrainage yi Ousmane yi Bassirou Diomaye di fay yëpp di ut ci gafa Pastef lay dugg yi Birame Souleye Diop di ut ci gafa Pastef lay dugg yi Guy Marius Sagna di ut ci gafa Pastef mais li ci gën solo mooy ñun ñëpp léegi mën nañoo wàcc ci terrain bi te benn policier dootuñu jàpp mais buñ deful woon loolu topp Macky Sall rek bañ a déposer ay plan B kon heure bii danaan Pastef ku yëngu ma tëj ku yëngu ma tëj amu leen droit ut parrainage amu leen droit def conférence amu leen droit daje ndax bu ñu dajee mu jàpp ñu léegi fu ñuy jàppee comme que ñëpp candidat lañ déposé nañ ñoom ak Amadou Ba premier ministre candidat Macky Sall ñoo yem même droit désormais fu Amadou Ba marché jaar nii gars yi marché jaar nee rek comme ça ñu connecté woog militants yi bañ a def erreur boo xam ni mooy danga naan su ma nekkul candidat rek lépp yàqu na déedéet. fibre décembre mois de décembre manam septembre donc dara incha allah dina nek ci terrain bi parrainage ñu Ousmane Sonko pendant que mom ci tribunal